mais Serigne Modou Diouf Ndioufène bokk na ci délégation bi mu ngi ànd ak Baye Lay Mbay ñu ngi ànd aussi ak Ibra Ndiaye jóge ba nga xam deux ñu ngi ànd ak Mor Xulle jóge ba Maraglu ñu ngi ànd aussi ak Serigne Amdi Sarr bu njaanee mais aussi ñu ngi ànd ak Cheikh Ngom ñu ngi ànd aussi ak magam Serigne Bàcc Njaay ñu ngi ànd aussi ak ki nga xam ne mooy yore protocole bi di Abdou Mbaye ñu ngi ànd aussi ak Maguette mbay Mbaye Seen bu jama Ceen Serigne Pap Kundul Meewaan Serigne Pap Sey jóge ba Dakar Serigne Cheikh Seen jóge ba jama soxna Ami Mbay sëriñ defal Juuf Juus Ablaay Mbay ak ñeneen ak ñeneen di wax rek sëriñ Baara damay wax tuuti jox ko mu eggale danga nga yëkkati li nga xam ne mooy bis bi nga cërale ko ko jël yiw boole ko ci te ku nekk xam na ni sëriñ Bara ay qualité ñun ñi nga xam ne dañu sekk moom àddina di ko dox dañ koo naw ndax nee nañu mën ngaa tëdd fii di te gaynde romb la fi te doo yeewu ndax am na lu tax waaye su la fi leleen romboon mën ngaa yeew dama dégg sëñ Moustapha Saliou benn bis mu koy wax am na yar am na teggin bewul am na xam-xam li ko yàlla wërsëgaleen mu koy bokk ak nit ñi loolu dara umpule ci mu ñëw nag ngir askan wi ñëw commune u Meewaan maanaam nun politiciens sama bopp laay joxoñ maanaam dafa ñëw fekk guy goo xam ne juróomi ponkal ñu ngi koy daw di wër ku nekk naan maa jiitu te yaakaar naa ne bu ñu seetaane du ñu am buy du ñu am laaro waaw du ñu am buy du ñu am mu bëgg a ñëw nag jàppale jaam jàppale waa commune bi mu ñëw nag ne ah suqali la ñu bëgg pour ñu soqali nag foog ñu booloo mu ne booloo soqali gox bi moom moo jiite mouvement boobu mouvement boobu li ko yëkkati mooy jàppale nit ñi mu jóg nag di ci dox waaye li ma ci gën a neex Serigne Modou dafa am ci lu mu tàmbali mooy di leeral këru diine yi ndax ku nekk xam na ne meewaan dëkk yu bari amul courant mu ne fépp fu jàkk nekk walla fépp fu jumaa nekk te amul courant te soxla ko nañu ko leeral ba ñi nga xam ne ñooy ñoo yore njaboot gi ñuy julli ji ñu mën a am fu ñuy jaar pour mën a dem julli ji ci jàkka yeeg jumaa yi buggul sax ñu koy wax waaye foog nu wax ko mu tàmbalee foofu tàmbalee ci waxtaan ak nit ñi pour. li nga xam ne manqué na leen ñu dox jëm ca muy ndox muy courant nga xamante ni loolu ku ko ku ku ko manqué rek sa diine dana sooxe mu dox jëm jëm loolu moo ko yëkkati mu ànd ko nag ak ñam ko war a àndal ndax soo gisee ñu koy junj yéen njaboot ñi ngeen am ndax ñun suñu defaree daara yi indi courant bi indi ndox mi donga yee ciy dem kon ci loolu ci lay dox mu ne nag ñi mu fi fekk mu ngi leen di tàllal loxo soxla na ñaan nañu ko ñaaral te li mu te li mu ciy def soxlawul sax ñu koy wax parce que ci département Tivaouane gisuma ku ñëw ci sa dëkk yëkkati ñaar fukki million ak juróom-ñett def fa centrale électrique ci sa poosu bopp pour jaar pour sa dëkk yëpp man ci département Tivaouane gisaguma ko buggul sax ñu koy wax mais dinaa fa egg Serigne Bara nga baal loolu da nga gis ne dafa war a nekk nga dox nag jëm ci pour jàppale commune Meouane kon loolu suñu ñëwee ci sang yu baax yii ci ñiir toog dee ñu leen ko leeral

nekk conseiller municipal ci commune Mewane waaye aussi parmi les quatre-vingts conseillers du département de Tivaouane dama leen a foofu nekk président commission waaye du mu ñëwee laa ko ne ah mi boori param ci tukkulóor xam ngeen mooy lan summi naa samay daal fas yéene liggéey parce que xam naa ne li muy def intérêt population moo tax mu koy def ngeen baal ma àq tuuti parce que dama ne woon il faut que ma leeral lool kon Serigne nee na yéen kilifa yi ngeen ñaanal ko ci loolu mu dox jëm ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy population bi yéen la koy defal te ci seen ndigal la koy defe waaye nag di ko def ci defin bu rafet ndax dama faral di dégg am ñu naan mbubb mii ma sol ku ko gàttal soo ko summee soo ko solee aussi di nga ko fóot ñun du ñu gàttal benn mbubb waaye mbubb mu ñu fekk mu gàtt bëgg nañ koo fóot nag ba mu set ndax mbubb mi population bi ñoo ko yor ñoo koy solal nit bis boo yëgee ni mbubb mi sa mbubb la rek ñàkk nga ko kon jàpp nañ ne lii fi sëriñ si wax lu am solo la parce que bu fekkee ne ñu ngi wax pétrole ñu ngi wax gaz ñu ngi wax ay milliards loolu nun la ñu war a def mooy li Baara Ngom wax mooy nañu booloo d'abord soqali suñu gox ba pare soog a wax leneen kon sëriñ bi Baara nee na mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm ci lii nga xam ne yëkk ndi nga cër bi tuddee ko ko waaye ñun tamit ñun nga ko defal ñun nga ko defal ñun ñi nga xam ne ànd nañu ak moom ci liggéey bi ci li nga xam ne mooy intere population bi pas suñu intérêt bopp mais ci intérêt population kon sëriñ bi baara nee na mu ngi lay sant mu lay gërëm di sant aussi ñi mu àndal parce que nee nañu xaayaan ku dégg séeréer waaw bàyyiwul kenn nag ndax sama maam dafa am lu ma nettali suma benn mbokk pël dafay yoroon way juram yamanu ñëw mu bari ay nag lool bari ay bëy lool bari ay xar lool noor bi metti mu ne day màng takk ay saretu mbaamam di dem minute bu ne rek góor gi ni ko dama sonn wàcc ma fii ma noppalu mu wàcce ko mu dem dem dem ba yëg boppam wàcce ko ci taatu new ni ko nag fii laa lay bàyyi nga dee parce que man taluma la maa ngi ànd ak ay gone maa ngi ànd ak ay mbote ngi ay xar ma dem ndax lima yor munuma ci dara te yow màgget nga ba bare da ngay mu continuer mu dem ba mu sori mu ko yoon mu ne ko ñewal mu ñew mu ne ko ah so ma défé ni dé duma bét ndax bama ci tollu yor li nga yor man li nga man am doole bi nga am man sama wayjur non la ko defoon mu ne ko caste ko ci mbam ni ko kon nañ dem kon baara sëñ baara bàyyiwul kenn gestuwul amul noonu ñëpp la woo ñëpp moo tax boo xoolee ci gannaawam parti bu ne dinga ko ci gis looloo ko tax a jóg te nag commune ba loolu la soxla soo gisee may wax sëriñ bi dafa am cër boo xam ne yàlla may na la ko may la ko ci commune bi ci fédéré bi ngay fédéré li ngay def ci xale yi ko def ci jeunesse bi loolu moom moo tax tey lii mu xam ne mi ngi tàllal loxoom pour yoral leen ko ëllëg ndaw ñi ñoo ko moom kon fa tabaarakallaahu liñ naan kàddu bi gudd la te damay bañ ñu ne politique na te nag diine ak politique ñoo ànd mooy wax lu rafet développement fexe ba teg li nga xamante ne si mooy réew mi ci lu baax doomu aadama yi jariñoo te ci loolu la nekk kon Serigne Bara maa ngi guddal dama lay jox rek ndax soo gisee ma ne gaynde la su la rombee fii mën nga koo bañ a dégg loolu moo tax ma ne man naa wax nga xam ne moom su ñëwee day complète bu ko defee sëñ Ibou Seyni Laal nee leen ko jàkk nee leen ko jàkk ngeen ñaanal ko ndax soxla na ñaan nee naa ko man dama gis ay qualité yo xamné en 2012 bi may ànd ak président Macky Sall mom la gis ci yow waye amna na yeneen qualité yu ma gis ci yow te gisuma ko ci président lolu nak damay xaar ci kanam la koy wax subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sëñ Baara